jàng tey loolu ngeen mettre en exergue ak yeneen i point mhm. mais ci li nga wax ni yëpp seeni problème yéen enseignants yi rek très bien mais parce que da nga ma interpellé wul ci yooyu yaa ngi may interpellé ci enseignants yi ma wax la ci enseignants yi et ensuite je suis une organisation syndicale mon rôle c'est de défendre les intérêts matériels et moraux de mes mandants mes mandants ce n'est pas les classes ce n'est pas les élèves c'est les professeurs première remarque deuxième remarque bi mooy professeurs yi bu ñu amul élèves duñ jàngal mais même à ce niveau là le ministre de l'éducation Mamadou Talla, que je respecte beaucoup, a dit qui veut atteindre l'élève vise l'enseignant. C'est dire quoi? Mais c'est dire que si nous réglons le problème des enseignants, nous réglons en même temps le problème des élèves. Parce que très souvent aussi, l'essentiel de ces élèves-là deviennent demain des enseignants. C'est important pour nous. Et ensuite, mais jàngalekat boobu nga xam ne dafa dem école. Il sait en âme et conscience qu'il a une situation sociale très difficile du reste. Est-ce qu'il a la disponibilité d'esprit de l'enseigner correctement C'est pourquoi aujourd'hui, on aurait réglé ces situations-là, verrait qu'on peut avoir une école excellente, avec d'excellents résultats. Mais la situation, on a tellement créé parfois même une diabolisation du monde enseignant. Je donnais l'exemple. Euh, mon, mon, ami a pris l'exemple tout à l'heure du président de la République qui disait que enseignants yi rek nekkuñu fi. alors que président de la république bu mu tasee jàngalekat yi leneen la leen wax mooy que yenn nekk ci dëgg parce que système u payoor yi nuñ ko tabaxee correctul te buñ ko corrigé am na ñu bëri ñu quitté secteur de l'éducation dinañ ci dellu loolu pourquoi waxu ko devant l'opinion je crois que c'est ça qui est important et ensuite je termine par là ñun encore une fois de plus l'école est notre gagne-pain nous avons choisi librement le métier d'enseigner Moi, je me prends comme exemple. Je n'ai jamais voulu être magistrat, ni avocat, ni médecin, ni autre chose. Je voulais être enseignant. Et pour dire encore plus vrai, je voulais même être instituteur, moi. C'est un métier que j'ai choisi. Mais j'ai considéré quand que ce métier-là, <laughs> ce n'est pas que par la noblesse du voilà. métier que je vais du métier bi dañ mais wax ni métier bu noble la wala jàngale moom métier bu baax la waaye boo bëggee am xaalis moom bul dem ci jàngale gis nga idée boobu dañ ko weesuñu dañu jàpp ni comme ni ngay jàngale comme ni ngay légiférer comme ni ngay defee feneen ci foofu nga war a réaliser wu ci foofu nga war a entretenir sa famille te ci foofu nga war a amee sa li nga war a am kon nag dañuy toll jamono boo xam ne nit ku nekk bu dee bëgg nañ am une juste une société juste ku nekk nañ ko jox akam ku nekk nañ ko jox gëddaam gis nga loolu bu amul on aura fait cent ans quatre dimanches de bruit mais ça ne donnera rien du tout. on n'aura pas entre temps kon ndongo yi ñoom lan la ñuy wax si moom bu li nga wax ni moom tant que wuñ ko ci euh, évolution en dents de scie la na a nekk mu baax suba mu tanee ginnaaw suba mu lii ndax accords yi moom joxaguñ leen date bu ne leen fii lay jeexee élèves yi dans tout ça. mais en tout cas les élèves je sais très bien. que boo leen laajoon ñu ne gis nga suñ ñu ñuy jàngal nañ leen jox seeni àq ak seeni yelleef. monsieur Sène nag naa la ah, benn affaire bu ma fekkoon lycée. dinaa ma ni professeur bi suba du jàng. ñu mhm. lay ma wàññi cours moo ma gënal dañ lay wax logique pour logique li nga xam ne noonu la élèves yu bëri di fonctionner c'est-à-dire bu ngeen leen tàmmalee ay perturbations. ci rythme boo xamante ne ni. dinañ dem ba boo nekk ko professeur bi du ñëw dem bañ a def cours bi moo koy gënal. Aram je préférerais me dises bu dee gouvernement bi mooy def lii ak lii. parce en réalité dafay mel ni jàngalekat yi daal dañ jékki rek di décréter ay mot d'ordre de grève ci seen coobare alors qu'en réalité c'est pas ça la situation de la lutte de set année dama la ko wax. Mhm. dañ ñu ko imposer. parce que damay bëgg nag bu ñu toogee en tant que sénégalais entre naataango gis nga li ñuy décider teg ko ci taable bi. coow li ni mu bëri bëri yëpp poñ yi nu mu tolli woon ñun ñoo ñun ñoo d'accord ak gouvernement ni lii la ñu d'accord mais leneen lu ñu d'accordul dañ ko teg de côté kon nag ngelawaay lu ñu d'accord ba ni lii la mais nañ ko jëfee Pourquoi on ne peut pas respecter les accords qu'on a signés ah, C'est ça le problème. Et c'est maintenant par ricochet. Vous pensez que parce que les enseignants veulent quitter l'école, faire la grève, etc., c'est de leur Non, non c'est une situation qu'on les a imposée. C'est une interprétation. Mm-hmm. waxuma mm-hmm. bi nga xamante ne état bi saafaragul li nga xam ne moom ngeen di laaj. waaw conséquences yi ci élèves yi la. Mm-hmm. donc yooyu tey nu ngeen leen di xoolee. li mu wax leer na voilà ci ñoom lay gën a. gis nga loolu moo tax ma ne quelque part part, il faut que le citoyen lambda soit arbitre dans cette affaire parce que l'école c'est l'affaire de la communauté gis nga dama yaakaar ni dañuy toll foo xam ne waratuñu mën a bàyyi jàngalekat yi kese ak nguur bi ci situation yooyu parce que nag l'école c'est l'école de la communauté c'est notre école à nous bu dee jàngalekat yi ak gouvernement bi xaatir nañ ay accords mais ñëpp dañu war a nekk les garants pour que ces accords là soient respectés parce que loolu moo ci mën a génnee sinon bu dee ku nekk day def la ko neex mais à partir de ce moment mais l'école sera dans le sens dessus dessous. waaw mais mais man damay rebondir rek ci ci ci li Aram wax de. Mhm. parce que dégg nañ la yow. Mhm. nga wax ni que l'école soit blanche noire ou rose. Mhm. seen yoon nekku ci de toute façon tant que accord yi nga xamante ne moom ngeen signé ak état du Sénégal état deful li ko war seen yoon nekku ci. foofu loolu buñ ko waxee comme ni ko Aram waxee. jëru leen en compte li nga xamante ne moom mooy euh, li nga xamante ne moom mooy intérêt élèves yi parce que tey il faut que ñu fàttaliku nag que tey enseignant bu amee c'est parce que am na ay élèves. te même bu fekkee ne yéen a ngi xeex également il faut que ngeen bàyyi xel. élèves bu amee. parce moom moo tax ñun aussi. Mhm. ñun aussi ñun mosuñu leen a dénier li nga xamante ne moom mooy seen xeex. Mhm. mais dañ ne yéen. Mhm. ñi nga xamante ne seen rôle. moom mooy enseigner. seen xeex boobu. warul tax ngeen hypothéquer l'avenir des enfants. foofu la ñuy waxee mais xeex boobu justement du xeexu hors de bu doon dafa nekk xeex boo xam ne bokkul ak dara cours yi maanaam chauffeur bi jël ay clients war a yóbbu war leen yóbbu jekki bàyyi clients yi parce que day jouer quelque part quelque chose. mën nañ ko considérer noonu erreur day am. mais élève bi day ñëw xeex ñuy xeex xeex bu ñuy xeex. Hmm. c'est pour une école de la qualité c'est pour une école de la réussite. parce que tey aussi li ngeen xam ne dañ ko waroon def te defuñu ko mais demal ci école yi nga xool da ngay gis benn professeur. ñu yaakaar ni moom dafa war a am vingt cinq heures plein bu amee vingt cinq heures plein classe bu mu dugg il a plus de cent vingt élèves alors que norme bi loolu. lan moo ko imposé un manque d' enseignant. manque d' boobu ñi nga xam ne ñoom la ñu jot a recruter ñu neew ñoom ñoo obligé di jël loolu yëpp en charge te waxuñu ko jël nañ boo demoon tey def une étude normale scientifique sur la situation des maladies de démence et autres. vous vous compte que pas mal d'enseignants sont concernés par cette situation et pourtant ñun ñu ngi koy vivre et pourtant respect pour respect de l'humain et de ce qu'il est capable de faire on aurait dû dire attention au gouvernement du Sénégal l'école a un coût et ensuite mais nañ ko wax aussi pour la vérité mais le Sénégal ça fait combien de millions d'habitants 16 millions mm. aujourd'hui nos élèves sont au nombre de combien nos enseignants sont au nombre de combien si Nous ne sommes pas en mesure de les mettre dans les meilleures conditions pour permettre au Sénégal d'émerger. Vous dites que vous ne regardez que cette lutte la patriotique que les enseignants mènent pour arriver à une école de la qualité pour une république mais loolu le débat se situe à ce niveau-là parce que tey dama ko jàpp et c'est la vérité les pouvoirs politiques dañuy jàll mais les enseignants resteront avec leur école. Bien sûr. Le président Wade était là, on était là, le président Senghor était là, les enseignants étaient là. Où sont-ils? Ils sont tous partis. L'école est là avec ses enseignants. C'est pourquoi c'est une obligation pour voilà. nous, pour ñu xeex pour que école boobu nekk une école de la qualité. Moi, je n'ai rien contre d'autres secteurs. Oui. Mais je sais très bien que tey dans nos pays et particulièrement dans les pays sous-développés,